salaamaaleykum mbokk internetu Sénégal yi euh, ñu ngi doon doxantu fii euh, ci mbedd ndakaar yi dëggu si nañu fii biir Colobane nag daje fekk ak. Euh, maam Cheikh Fall mam Cheikh Fall maam Cheikh ñu gis la nga sol équipe mayu équipe nationale donc yow teel nga supporté depuis le matin ñu bëggoon xam actuellement à quelques heures du match looy yëg yenn impression nga am. waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla rek di xaar suñu gaynde yi rek ñu def lu rëy rek. ndax xam nga coupe du monde moom c'est un niveau international bokk la niveau Afrique c'est niveau international te xam nga demoon nañ 2018 am lu ñu lu ñu fa dal premier match euh, nga gagné deux matchs ci def nga def erreur nga toogee premier tour te loolu gën naa ni Aliou Cissé niveau moom niveau moom yokku na ci loolu te gën naa ni erreur bi ko daloon gën naa doon ko dalaat ndax normalement poule de 4 sa premier match soo amee victoire yeneen match yi war nañ ko mën a gérer ba génn yaakaar na kon kon moom erreur boobu mu defoon ñu ngi koy fàttali na ci bàyyi bàyyi xel daal te gën naa suñu poule bi war nañ cee mën a génn gis nañ Qatar gis nañ Équateur nam naa nag Équateur na ko deux deux zéro mais teewul teewul ba léegi Équateur du équipe noonu boo xoolee Qatar tamit du équipe bu taxaw noonu gëm naa daal bu gënee suñu bopp daal match daal war nañ cee mën a génn daal on est 17 millions d' max bi daal maanaam li ma ci gis nii mooy maanaam Sénégal ñu xool ne xam ne Sadio maane rek yorul équipe bi ñu maanaam ñu góor góorlu ci quoi. parce que maanaam boo koy xool euh, maanaam Krépin Diatta ak euh, Ismaïla Sarr ñoom daanaka mën na ñëw jël place su Sadio Mané ñu ngi koy ñaanal nag Sadio maane yàlla na ko suñu borom defal tawféex mu dellu ci sagoom neexul benn Sénégalais nag bu ñu sañoon Sadio maane day bokk ci équipe bi mais maanaam yàlla na ñu yàlla jox ndam li daal. ñun daal loolu la ñu ñaan rek. waaw match tey bi nag match ba xaw a difficile la doon quoi par rapport ak les absence des Sadio Mané dina xaw a manqué tuuti bi mais nag mais boo fi nekk ñoo war a gëm seen bopp quoi football pour jëlee ko Sadio Mané un mois bu dara tamit Sénégal yi dañuy dañuy dañuy kii daal saa Sadio Mané équipe bi du mën a sori quoi kon loolu war naa mën a gën a pousser booy yi ñu gën a yokk jom xam ne même Sadio Mané mooy leader équipe bi mais bu fi nekku tamit ñoom dina war a mën a gën a fas jom gën a mën a yóbbu équipe foo xam ne mais bu fekkoon Sadio Mané fi tamit foofu dina fa mën a dem ak Sadio Mané. suñu premier match euh, contre Hollande la Hollande du équipe bu ndaw xam nañ ko donc min nañ seen i joueurs yi ci championnat yu mag a mag yi Hollande du bu ndaw Hollande nag euh, comme daaw comme euh, lu monde bi passé dañu am suñu première victoire loo ci premier match bi Hollande nag est-ce que yaakaar nga ni danañ ko mën a dóor. c'est Hollande moom du équipe bu ndaw ndax boo xoolee parcours am deux mille deux mille dix dafa ñëw kii 2010 boo xoolee yaakaar na dafa ñëw final perte ko 2014 mm, ko perte 2018 mu perte ko demi final kon kooku du du équipe bu ndaw te gis nañ seen au niveau international ci équipe yi gën a am doole la ñuy fubal boo jëlee benn benn tay naa ko fi mais boo jëlee benn benn ci équipe yi gën a fort la ñuy mu nekk Angleterre wala mu nekk euh, Espagne boo xoolee seen joueurs foofu ëpp lu ñuy évoluer entre Espagne mais boo xoolee équipe bu baax daal mais nag. xoo ne ñooy Sénégal daal gëm naa daal war na ko a gagné daal. xam nga Pays-Bas c'est une grande équipe instant yi a taxaw Europe boo xoolee na a def Sénégal du équipe ndaw quoi am na ay quelques joueurs yi joueurs yi ñu fa quoi su mun gëmee seen bopp war na mën a fubal quoi pas ñuy ñëw fubal ay bloc ba di jéem wut benn point wala yooyu noonu doona war ñëw doon Pays-Bas ñi ngi de qualité quoi yoo xam ne mën a def différence mais dañuy génn jéem a sase trois points yi bu ñu ko mënta am ñuy lienti benn point bi mais pas ñëw taxaw rek di sase benn point bi quoi loolu bu defee Hollande mën nañoo ndax dañoo am ay joueurs yoo xam ne joueurs De Jong kon doo ñëw taxaw rek a fool bloc ba ne ay moom gën a yóbbu benn point bi loolu du la arrangé génn football ndax ah, yow war a gëm ne war ngaa mën a dóor pied bas quoi donte ma la nga ko mën a génn football bu fekkee tamit léente trois points benn point bi ndax match bi li si a bon mooy mooy mooy défaite quoi ndax propos dem Équateur dafa dóor te nga ne Équateur instant bi trois points bu fekkee mu ñu ko am jóg léente deux points yi loolu mooy gën moom man de su ma amee 2-0 baax na de pour man <laughs> su ma 2-0 baax na pour man. 3-0. 3-0. ah. ku ne mën na dugal rek. ku ne mën na dugal. première bii bi Sénégal dañ koy dugal moom. waaw première bii bi moom Sénégal dañuy dugal première bii. waaw Sénégal moom mooy am ndam li moom waaw. yaakaar naa ni que Sénégal mooy gagné incha allah. Ah, yaakaar naa 2 la war dóor. ndax sama sama gaynde yi wóolu naa leen. même bu fi nekkul même bu fi Sadio nekkul dañuy dóor. Sadio Mané keneen ak keneen a si yam bu ñu amee yaakaar si ñëpp rek dañuy gañ. wallaay azim. dañuy gañe déggoo li ma wax du ma wax ñaata mais dañuy gañe. lool kay moom moo gën a wóor xanaa. Sadio Mané nekku fi waaye ñi fi nekk ñu ngi ci tànk Sadio Mané. te xale yu baax lañu te am nañu jom ndax ay sénégalais la te sénégalais jom rek nag. kon da ngaa tu es optimiste que ni mën nañu génn pays quoi parce que Hollande bu ñu ko xasee bu ñu dóoree euh, bi boo dóoree Hollande da nga jël pays ci sa poule. de match démb sax maa ngi ñaan sax ñu niil mais match démb niil mënu faam boo xoolee ñaari équipe yi ñu mënu faam mais Hollande moom gëm naa ni gëm naa ci ma gëm war ko mën a gagné euh, ak motivation bi saa yoo saa yoo maanaam loolu gëm naa ni gars yi dina gën a motiver daal Euh, surtout ça ñu revenir un peu ci loolu ci blessure Sadio Mané bi est-ce que blessure bi du tax gars yi gën a maanaam di football aussi pour Sadio Mané surtout pour maanaam gagner le premier match pour déjee ko Sadio Mané. man loolu laa ji sax naa leen tey jii Sénégal matcham bi man gëm naa ni dina football loo xam te ni li mu gëm naa ni football loo xam te ni moom mus mus koo football ba Sénégal nekk ba léegi ndax tamit mm, Sadio Mané d'accord naa Sadio Mané moom mooy 50 euh, pour cent Sénégal Sadio ñeet day nekk onze ñee nekk onze mais gëm naa daal équipe daal bu ñu tegee li ñu war a teg dëgg-dëgg Sadio Mané faa bañ a feeñ sax waaw ndax suyeur yi fi mu nekk nii boo xoolee ci la ñuy xamee maanaam seen jom ndax maanaam comme lii dal na Sadio maane muy ndogal bu ñëw ci moom suyeur yi ci la ñuy gëmee ci la ñuy xam ndax gëm nañ seen bopp wala gëmuñu seen bopp a ah, gars yi Sadio Mané bi moom euh, xaw xaw nañoo handicapé tout mais ay ay lion la ñu àndal nu allah nous vaincrons tout tous les les équipes qui sont bilaa walaay euh, booy war nañ mën a football ngir dijjee ndam li Sadio Mané gën maanaam gën a yokk jom gën waaw waaw Sadio Mané naan blessure bi day tax euh, équipe bi faible ak yooyu man dama gis ne blessure bi day ñu ngi naan dañuy faibloo mais instant yi man li ma gis si kanamu booy day wane ni ñoom blessure bi daf leen yokk doole incha allah pour ñu mën a jëli ndam li te dañ koy am incha nañ ko teg si loxo yàlla rek bilaay walaay ndam rek incha